di Cheikh Ahmed Tidiane Youm Habib Sy wax na lu bari ci moom waaye taxaw na fa taxaw boo xam ne taxaw bu ànd ak défendre pur ci biir coalition bi waaye mun a défendre coalition bi ci biti ndax loolu mooy ànd kon tey dañ fay ñëw pour célébrer l'un des plus grands partis politiques du Sénégal muy le PUR di célébrer seen ñaar fukki at ak juróom muy vingt cinq ans loolu tuutiwul bëri na tey ñu nekk fii ci biir stade bi vingt cinq ans la ñu am wala lu yées vingt cinq ans ma bëgg a wax ak sénégalais yi tuuti ci lima xam man ci PUR parce que sénégalais yi am na ci ñoo xam ne ba léegi soo waxee PUR dañ koy jaawale ak daayira naam président PUR kilifa diine la am ay daayira yoo xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko waaye le PUR est un parti politique et l'un des plus grands partis politiques du Sénégal sama ànd ak PUR ba bi ñuy commencé ànd am na lu tuuti lu ma xamoon ci PUR waaye ci ànd bi laa découvrir ndekete li Sénégal am ci li ñu war a gën ràññee ci ay intellectuels ay cadres les mieux formés au Sénégal et le monde ñi ngi ci biir PUR. ci suñu ànd ak PUR la jàng ni xam-xam ci politique xarañteef ci politique. ak gis-gis ci politique boo koy wër ñëwal fekk ci waa PUR ci suñu ànd ak PUR la ñu découvrir ni ñin li ñu gëm ñun waa Pastef te ñu nekk ci Yewwi Askan yëpp gëm ko mooy ni politique lañ bëggoon gëmloo ni mooy politique mooy naxaate booleeg PUR bëri na xam nga tey ku dugg ci te ci stade bi boo moytul nga ne est du Allez Casa moo fi nekk ndax couleur yi ñu bokk muy le et le blanc moo tax ma bëgg leen wax lenn lu gàtt yeewi askan wi Cheikh Ahmed Tidiane Youm da koy wax tout le temps ne sëñ Moustapha Sy nee na la ngay di def def leen ko sur le terrain moom li muy def mu koy def fi mu ne moo tax ci zahir comme ci baatin xam nañ ni suñu ànd gi ñu ànd yeewi askan wi ànd googu mooy soppi Sénégal ba faw est que gëm ngeen loolu est-ce que gëm ngeen ni dans douze mois bu soobee yàlla dans douze mois bu soobee yàlla kay jiite Sénégal ak ñi muy àndal ñu jiite Sénégal est xam ngeen ni génnul fii xam ngeen ni génnul Yewwi Askan Wi incha allah bu soobee yàlla moo xam sëñ Moustapha Sy lay tudd wala Ousmane Sonko. Khalifa Sall wala Malick Gakou wala Déthié moo tax nag dinaa daaneel sama wax ci tànkaaf ki nga xam ne ay xërëmkat yu ñuy wëri ba Inde ñoo ko gëm loo ni mun na toogaat ci au ko de bu dee ñu ko wër ci ay faucon di ko gëmloo ni mun na sukkandiku ci armée ak gendarmerie particulièrement ci gendarmerie ak police ak justice pour toogaat fii au-delà ndax nañ ko Macky Sall ko bëgg wax mooy ay mbiram dafa jeex tàkk bu déggul olof ma wax ko ci pulaar gasi bu déggul pulaar ma wax ko ci français c'est terminé bu déggul français ma wax ko ci joola bamban bu déggul joola ñu wax ko ci soose abanta mooy game is over junni na ay rakkam ba pare na takk ay bagaasam te nag ci may daanele Macky Sall yàgg naa tooñ ay nit ci réew mi ans yi mu toog yépp ans wu tooñ la ak lor jom yi ans yi mu toog yépp ans jaay doole la ak essayer toroxal nit ñi waaye nag am na benn fee boo xam ne maa ngi koy wax Sénégal yëpp nañ ñu déglu lu am solo la la paix et la stabilité dans ce pays mooy suñu matière première loolu moo jiitu pétrole moo jiitu gaz moo jiitu or moo jiitu zircon Macky Sall moo fi nekk président bu njëkk a ay milices ay milice ay sàmba booy dugal leen ñuy jaxasoog police yor ay lance grenade yor ay fetal di ko tiire ci sénégalais yi loolu kenn du ko nangu ci réew mi ñu ngi koy dankaafu une fois ne téye ay milice ndax ku xool li fi daje xam ni bu doon kere ay milice rek yomb nañu lool tax ndaw ñi fi nekk ñépp dañoo nekk seen dikk doole entraîné wu ñu ba mat li ñu leen doyee koo ci joxoon gànnaay mu dem xeexi na tee ay ministre ndax li xew keroog ci corniche bi ay ministre Macky yor fa ay grenades lacrymogènes ak ay fetal ba alkaati yi ñemewuñu leen jàpp ne faw ñu jël ma dugal ma ñoom seen fourgon blindé pour bañ ñooñu téye ñu ay fetal loolu gàcce senegal la te maa ngi dànkaafu Macky ndax benn bis bu laalee benn ci leader yi fi nekk le peuple va le sortir du palais et va le comme Samuel Doe comme tous les yi nga xam ne jaar nañ fi mbokki pur rassemblement bi dal na xel waaye di doon bu mujjee suñu rassemblement ndax daje yi ñuy daje dafa am solo message la bu ñuy lancer au monde entier que Macky Sall est politiquement et sociologiquement minorisé dans ce pays suñ fi toogoon ba deux heures du matin kenn du fi jóg dem yoonam waaye moom saa yu dajalee ay nitam balaa ñoom ñu jël kàddu nit ñu dem seen yoon parce que c'est des foules transportées ak ñu ñuy fay ay 2000 francs ak ay 5000 francs ñun bokkuñoo ak ñoom ñoom bokkuñoo ñun moo tax nag. loolu xam nañ ko dama ne kenn du ànd ak sëñ Moustapha Sy ñu koy fay pour mu ñëw wuyu si sëñ Moustapha si kenn du ànd ak Ousmane Sonko ñu koy fay pour mu ñëw wuyu si Ousmane Sonko xam nañ ni ay militant dëgg lañu ñu am ute naag ñi ñuy transporter ñuy na ñuy fooye seen xel moo tax nag fi may daanele nii daje bi rafetee tey ci géejawaay ni mu rafete woon keroog ci Kër Massar ni mu naroon rafetee keroog Mbàkke ñu tiit ba interdire ko yeewi askan wi dina jàpp date fan yii bëgguñu méga meeting de giga meeting la ñu bëgg giga meeting ndax xam ngeen ni capacité bii pur am Pastef am ko taxawu am ko keneen ak keneen am ko amul fenn fu ñu mën a contenir fii ci senegal waaye dañoo bëgg rassemblement boo xam ne cent mille sénégalais dinañ fa daje ba Macky Sall xam ni xajuñu ci moom ba Macky Sall xam ni duñu moroomam ba Macky Sall xam ni jeexal na ci réew mi ba Macky Sall xam ni bis bu ñu jógee dox jëm pale dara mënu ko sauver du police du gendarmerie du armée je vous remercie asalaamaaleykum